muy Ibader Thiam moo andi coowul téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàngale histoire dafa war a tege ci dëgg ak maanu nahnu naqussu alayka nabahum bil xaqi alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay netti la xamoon dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur kat mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ca des dama cee maandu. ndax ñun ñépp ñoo bokk luñ doon kenn ku ci nekk am loo gëm moom di loo ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kéelam wax ak kéelam wax waaye li xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumte bari na moom loolu moom ka ko bind bu ko may dindiwaat na ko dindi ndax nit doo ko sosal wala nga tuumaat te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sama mën naa fi ne ci biir réew kon loolu moom na ñëpp xam ne yoonu murit reconnaître téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkut lay doon ndax bañ koy bind daayira Rawdu bi nga xam ne ñoo yor loolu ci wàllu yoonu murit bañ ko déggee kenn woowu leen ca waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité leen ca ndaje mu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca lañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fa ba def ko kër gi li yëpp ci Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen weesu ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ booba dañu mujj xamaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ Tuubaa dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkandikukaay wérul ndax naaj joxe benn firnde bu gàtt rek am na ci benn ci ci masdar yi boo xam ne dafa wax ne Serigne Touba ci sareexa ak diinu ju set la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibrahima Fall di jëblu kon loolu la muy junj ñëpp xam nañ ko sa loolu téere ba ka ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Serigne Maodo Touré ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew mi da leen woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee coole njuumte la. am na ca feneen yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ca ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ca lam ci wax it nee na maam Mor Anta Sali tëltoon njàng de moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem jàngi te loolu di loolu maam Mor Anta Sali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université la ndax léppoon ci réew mi ca yooyu jamono bu nit daa jàngi ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala arud wala bayaan wala mantiq wala fiq moom na daaraam yëpp day faral jàngale moo tax dañuy wax ne université kon ñi ñu ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ñu ko koy diggale ci suñu biir tam danañ ko koy diggale ci kër diine yëpp ndax ñoo ceew batte fenn fu ci ne na dem laaj leen ñu jox ko seeni mbind mu boole koog yam am ñu duwal ko ci biir topp ko bu téere bi leer bu génnee ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag mëneesu ta bàyyi histoire ndax adduna de dox te mbind du fi dugg buñ ko bàyyee moom mu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñu Tuubaa ndee demee kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal anduñ ci anduñ ci tey anduñ ci ëllëg li fi defaraatuñ ko ba téere bi dëgg ci yoon loolu moom ñu ngi koy waxee ci kanam adduna sépp di ko xam bu fekkente ne nag nanguwuñ caa dellu si ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek la waxaat ba fi tere ay tere am suñu gàntu ci Mbacké daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jën ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat ci bañ déggoo ci boobaa itam dana jël responsabilité. xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci lu ci leer la euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan euh, yàlla suñu borom dimbali ñu def jàmm ci réew mi def ak dal ci réew mi def ak déggoo ci biir réew mi def itam ak déggante ci biir réew mi ndax Sénégal kat même réew te ñu fi dëkk ñëpp ñoo bokk réew mi te suñu borom bi leen fi dajale moo xam ne tax mu dajale leen fi. te suñu kilifa yu baax ya fi jëkkoon sàmm nañ ko ba nëgëni lépp di rafet kon loolu mm, lépp loo xam ne mën nañ ko ci góorgóorlu ji fexe ba sàmm ko ba déggoo ko di continuer ndax koo xam ne mënoo tuxu mënoo jóge fa nga dëkk kooko jàmm rek mooy la la jëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh